Allah kii yi salaamaaleykum wa rahmatullah xam ngeen ni ñu ngi fii si fajar bi fii si euh, Touba PAI suñ ko waxee ne xel yëpp dem si sëriñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax ndax xam ngeen ni fii moom barabam la bu wér wax dëgg yàlla di ko ziar bu baax a baax di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te man wër wér tey fii si euh, bus euh, makaarimal axlaax yi nga xamante ni bus yu liggéeyal sëriñ Touba la di liggéeyal cheikh mamadou fadal jaaré ko cheikh aw serigne abdoul karim mu don nak ndimbal deug manam xol mbokk yi demine bi nak la teudé way ci bir bus bi nan lañ ci tax lan leen si taxawee ak eh, personnel bo am solo bi nga xamanteni ñom lañuy andal euh bus bi nga xamanteni bi bus yi nga xamné ne alali serigne fallou la ndax ki nga xamanteni bi moko fi tek dafa wax ne moom muumu ci dara serigne Fallou ko mom mom dal nay yàpp di dem Touba di dellusiwaat soxlawu ci dara lepp lu ci gëna mu dugalat ko ci bir liggéey bi su ko defee nag euh, clients yi itam sawar ci loolu nag ndax soo ñëwee waxuma dara signaler Badara waaye dal gi rek ak dugg ndànk-ndànk doo dégg benn bruit doo dégg benn coow kenn ku ne ñu jox la sa euh, àq ak sa yelleef ba mu mat sëkk loolu rek dafay am solo waaye am yeneen itam nag yoo xam ne yuy feeñ ci biir la yooyu moom xam naa ne xam naa ne ñi nga xam ne balañ sant ak moom danañ ma wax dara ndax léeg ñu. ñu bett ak loo xam ne daanaka da ngay mën di xéwlu bis booy dugg daal di xéwlu ba ak Tuubaa bu fii lañ ko ma si yooyu yëpp day xéwali Sëriñ Tuubaa yoo xamante ne bii Sëriñ Tuubaa Sëriñ bi ci moom moo ñu ko fàggul waaye nga ne Sëriñ Aliou Badara dem ak dikk la kon su fekkente ne bii ndimbal lu mel nii eh, eh, na ko moo tax képp ku sofu ci moom wala nga yaakaar ko rek faaw rek jikko yooyu day nekk ci yow moo tax boo gisee mboolem murid yi nga xam ne ñoo yore liggéey bi eh, wax dëgg eh, woyof gi ak dal gi ak mën a accueillir ñëpp na seen sang suñu sang bu baax ba Cheikh Abdou Karim mel nga xam ne boo ñëwee dalal la te it nag danaa la wax leen bis boo xam ne fii lay déparé arrivé kër Cheikh Abdou Karim Mbacké loolu beneen mbir la ndax ñun ñëpp nag waa jooju la ñuy wër ñun tubaarkàlla sa yàlla jërëjëf sëñ Mamour njëkkee nag si client yi nga xamante ni gis nga boobu ba léegi ñu ngi jógee fu ne di ñëw te nag li gën a yéeme si waxtu wi cinq heures du matin ñun la bus yi fees na nga xamante ni taalibe ñoom Touba mooy seen lépp wax dëgg yàlla waaye personnel bu professionnel bi nga xamante ni fekk nañ leen fi naka la ñuy liggéeyee si biis bi ñu mën see eh, amal ni que ñoom ay reportage incha allah ba keroog ñuy àgg Touba si kanamu Sëriñ Abdoul Karim Mbacké borom Makaarim Axlaaq kon sëñ Mamour eh, si bus bi yëpp nag dinañ si ànd ak yéen ci ay eh, waxtaan waaye ay témoignage lépp rek incha allah ba dëkk bu sell ba di Touba. waaw man mi koy dawal kay maa ngi si mën a wax lu bëri waaw macha allah macha allah wax dëgg fa neex yàlla am sécurité stable na boo si duggee doo am dara looy tiit te mu daw correctement en même temps problème bi la du weesu cent te cent yi rek day daw comme deux cent wax dëgg fa neex yàlla macha allah daal bis bi dal. amul ben problème wax dëgg fa neex yàlla. ñëpp ben équipe la man amul patron si équipe bi ñun ñi lu ma xalaat koy wax Luma ma bëgg def mom kadum. chauffeur bi moo ko moom du ma ko si fekk dama koy laaj njëkk mu ne ma lii ak lii ñu ñu def. mais fu ñu jàkkee dañuy jàpp euh, waxu patron rek liggéey bi du dem ku nekk day xaw a téye boppam comme que loolu la yàlla dogal liggéey bi yomb na lu ñu mën a def rek naxante client yi ba ñu bëgg loolu mooy suñu rôle fii. boo xoolee li tax ñu jël euh, yoon wi mooy que ni soppi doxinu transport si Sénégal moo moo waral biis yi taxaw parce que li muy liggéey lépp da koo delloo si liggéeyu Xaadim Rasuul motax bis yi taxaw xoolu ci ñaar amu si ñadrum limi am lepp da ko delo ci liggey Serigne Touba kon ñu ngi koy sante mom tamit di gërem mom alsan waaw di wax ni bo bo xolé car bi am na beñe pour nga xewlu am na café pour nga xewlu am na ndox bo xamanteni yépp gratuit la duñ ci fayeku dara di sédélé café di sédélé beñe di sédélé ndox bu sédd loolu yëpp pour clients yi bëgg la moo tax ñu ne liggéey bi ak ñoom ñoo ko bokk moo tax al bu mu ne day indi kaar bi fii géejewaay ñëpp dañoo kontaan kaar sëñ abdu Karim dem ba Ndindi wax dëgg yàlla ñun loolu dañ koy rafetlu. yombalal tamit paas bi. boo xam ne juróom-benn téeméer doo taxaw diggante fii ba Touba te loolu lépp am ci biir kaar bi kon. maanaam delloo njukkal sëriñ Touba rek moo ko tax a jóg. clients yi ñuy yóbbu wax dëgg fa neex yàlla ñu ngi kontaan ci liggéey bi. en plus ñu ngi wax né affaire bi arrangé na leen bu baaxa a baax baax ñu ngi ñaan yalla dal mu tawfiix bu baax baax di ñaan dal mu gëna sawan saawan bare. yu bare bare bare na pour jaamu yalla rek ak talib Serigne Touba wax deug fa neex yalla wa di wax jërëjëfe Serigne Touba rek jaaram mam Cheikh Ram Fall di sant suñu borom bi di wax ni nañ wax ne jëf serigne Abdou Karim Mbacke nañ ko ñaanal mu yàgg fi lool ta and ak wër di wax ni tamit ñu sant ki nga xamante moy suñu jëwruñ di Alsane geey parce que boo xoolee lii lépp moo ko waral mais mi ngi tënku tamit si makaarimal axlaa kaar yi si loolu lay dox doxul ci leneen lu dul li sëñ bi digle si loolu rek la ñuy dox. départ bi dëgg yàlla ah, ah, dañ ko def norme yoo xamante ne si boo fi duggee danga mel da nga particulier man mi wax yow nii wax dëgg yàlla yor naa oto mais sama bi mu sama xel li mu njëkk a mooy kaar bi wax dëgg yàlla loolu tax car bi moom wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa ay mbiram moo demee noonu ñun waxuma la dara waaye dëkk naa Tuubaa rek nga ñëwati wëlbati ko gis kaar bu mel nii dëgg yàlla doon sant yàlla. c'est neex na de neex allah. lépp baax na alhamdulilah amul dérangement saisi tout est bien. yàgg naa ci dugg moom tax bi ñuy ñëw mu ne fees na ah ma ne ko jëm ñëw loolu rek mbaa ñu daal di daw dikk waaw fu ñu mës a jëm ci la ñuy dugu bala ay sa bëre ñu fi nekk baax la ñu am na nañu yërmaane suñuy doom la ñu la xam ñu rek la ñu bokk ñoo bok bokk tuu baax bis bi waa yàgg naa cee dugg waaw moom noppal nañu lool de moom moom bis bi yaatu na te njëg li noppale na moom. waaw ah, bis moom nen am na tawfeex rek na yàlla bég bég trop heure booy def tuwaa kay moom laa fa lay jël. saa bu may ziare moom bis bi laay dugg wax dëgg yàlla. dèjà am na sécurité gaaw na sant nañ si bu baax daal may dem moom laay jël su may wàññeeku tamit moom laay jëlaat. moom dafa mel boo ci bëggee yàlla dala cay boole ndax xëy na lii yàgg naa nekk sama liggéey moom mais waajurum bu jigéen ndeysaan day faral fi may liggéey mu ñëw di fa toog ñu waxtaan moom alsaan mais day faral des fois di ñëw toog ñu waxtaan ndax des fois xam nga moom du lekk suukar des fois dafay ñëw ma ko defal bu amul suukar ñu toog di waxtaan léegi bu ko defee moom mi ci te boppam bu ma daan bu ma daan xëy di jaay boobu diwis bi day gaale bu côté di gaz mais su ma ñëwee ba tollu noonu seen photo sëñ Abdou que sëñ Fall damay suma jadi, suma su ma yeggee sama njaay tubaar fakal la ba ben jour man sama bis bi gar fi fi ne ki ma léegi dafa nek fe côté yi paya ma ne nga mais man ko waaye xol bi dal ki ma bëgg dal ngi ci rek ma dem di dem momi mi ma romb ko ñu moko mo ko moom waaye miñante wuñu miñante gogu ba ben jour mu dal di rombu bi mu rombee ñu pare mu dal di dëkk ya, dal di may wax dal bëgg-bëggam ci li man ko lool amul ben jafe jafé muy ko xamni nak xam nga jëmono ji mom nit mëna bëgg waaye moom dafa nekk koo xam ne tey amul loo xam ne tey dama koy sas ci lii te nagu ko tumoo na ko cee bañ a fekk ñu wax wax ba yeggal mun ma léegi man damaa bëggoon tey noo ko bëggee man ko seetal yow noo bëgg rek ma defe ko noonu parce que xëy na lii sama bëgg-bëgg tey yàlla moom ma ci boole suñu fàllu moom mooy suñu yaakaar tey ëllëg ëllëg doomam ji sëñ Abdou fii la nekkoon tey ci jëw di tuubaa seen dëkk Mbàkke nag nekk koo xam ne ku am kóllëre koo xam ne bu la gisee tey heure bu mu mënti doon bu la tegee bër xàmmee la kon nak dañuy ñaan ak mom wax deug yalla moom ni nga xamni mom moom mi am yéene di def li ta day dal woon xolal dana ko def suba dana ko def ngoon xam nga lolu bëgg-bëgg la yéene ji mu ci bëgg nak yalla nako yalla yombalal bis bu moko ne tay yona bi fekk nako ko bitim rew way ba ma ko waxee des fois dama naan ko jox ma nanga way deful ma ah ba loolu tuutiwul man ko baax na géy mun ma loolu tuutiwul man ko ba baax na géy te moy na ne ko loolu dafa bëri mais du ci tek ben baat day toogum yàgg mu ñu man def mel ne liggéeyatul ma sëñ Fallou xanaa man ko ah kay géy waaye am na ci loo xam ne man ko damaa xool ci jamono rek ndax xam na am na ci loo xamante ni xëy na nécessaire yi moo moo yombatul su ñu li nii nangam la jar bu subaa ñu la nee nangam la jar waaye man ko su ko doole ma toon sa dara lu def parce que li nga ci bëgg ñun ñëpp moo la ko sabablu kon nag dañu koy ñaanal li mu ci sabablu ak li mu ko bëgg yàlla na ko yàlla yombalal yàlla may ko gudd fan may ko wér yéeneem yàlla na ko yàlla mottali yàlla bàyyi ko ci kanam njaboot gi jërë ngeen jëf mbokk yi noo noo ngi nii ci ci bis bi nga xam ne mooy bisub euh, Cheikh Abdou Karim Mbacké moom euh, Cheikh Mouhamadul faadal nga xam ne mooy départ fii ci PA yi euh, nga xam ne kër Cheikh Abdou Karim Mbacké la jëm ndax bés yàlla sàkk fi la ñuy départ kër Cheikh Abdou Karim Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Fadal foofu mooy fi nga xamante ne bii fa la ñuy taxaw. mboolem murit yëpp nag saa suñ xëyee rek songu biis bi ci fajar gi am yéene dem Touba ndax ab toogaay moom bu naree yàgg yaatu mooy gën te loolu feeñ na ci biis bi waaye loolu lépp rek day dugg ci yërmandey Cheikh ji nga xam ne tey ñun ñëpp ñu ngi jëm Touba ngir jëmmam di bis bi nga xam ne mooy bisam di weer wi nga xam ne mooy weeram waaye ki nga xam ne nag daa am cër ci Cheikh Mouhamadou Fadal bu wér te àdduna bépp xam ko muy Cheikh Abdou këri Mbacke nga xam ne bu du woon a biis bi sax murit yépp ci moom lañ jëm waxantu wala nag biis bi nga xam ne biisam la ci xam lay déparé waaye ci buntu këram lay taxaw kon loolu ba tey daf nuy gën a yombalal ngir nu mën a jàkkaaroo jëmmam ji tedd jooju ziar ko ma amaan beneen mbégte itam mooy kuma ma xam-xam maak mom ndax kon ñum alalam alalam lañ moo waxon timit na mom Cheikh Abdou Karim Mouride Sadikh ñi ngi koy ragné ci dundu mam Cheikh Ibrahima Fall di waxtane seigne Fallu ak Cheikh Ibra ndax bisu seigne Fallu la kon ku ci tok war nga waxtane seigne Fallu Cheikh Ibra sunu ganjar te seigne Fallu pili Cheikh Ibra egal yoonu Mouride dégg nga mbay ken xandi moma ne lël ba cheikh ba mu mujj ci xuru say nopp dom ci la bok am ñu ca faatu nak ñu tok bam mu cheikh xetuk may xegn de ci xuru mbacke ñu na tek mu na gaay juk leen borom Tuubaa de xegn na ma xegn ko faaw ni ngeen ko fi gis ne ñu juk taxaw xol na ko gis nu dara bam mu am ko daw dik na ko gis nañ gawar go xamne ci ba fasu xacc la war waye mbolo ko top am ko ko ci xamé daw dik dey cheikh ko Fallou ñew maam seex na bërit jug mag ñi topp ko mu taxaw di séntu bi sëñ lu ñëwee ba jub si Cheikh Ibra mu ne ma daal daal yu mboq la sol maam Cheikh daal di këf daal di daal di koy bokk daana doom ñetti jéego yooyu sëñ Fallou jéego wul leen dab këppal ma ci ma dem te ñëw moo ma nettali de nee na maa ngi taxaw nee na keroog sëñ Fallou dugg ak Cheikh ra ab diir mu génn maam Cheikh naa doom kuppi leen jéego yi ñu kuppi ko moo ne li wër tund yëpp nañ ci teg seen bët daana doom na ko sàmm nag ba gaaw raaf ndax ku sa bët tegu tey ci tànkam Serigne Fallou bi jéggal nañ la doom daan lii rek laa jublu waaye waaye gis naa ci kéemaan dañu ne tekk mu ne yàlla bu mu gaaw waaye kat bu ñu ne doomi Serigne Touba moom nekkatu ci kaw suuf sët ba njëkk a toog yilif yoon ni Fallou mu ma doon bàyyam loolu nag ba ma ko sëñ Saliou ngi fi waaye denc la woon waaye feeñ na Alaaji Baara doon na Sëñ Touba yàlla na yàlla yokkay leen taas ci barkeem biisu makarimal axlaa daanaka bu ñu waxee makarimal axlaa lépp ngi si biir lépp ngi si biir donc ñun loolu la ñuy teewal donc clients yi comme ni nga ko waxee ku nekk dina fi ñëw ku nekk dina fi dugg mais ñun ñun ñoo koy gérer ñu koy gérer mooy le respect parce que bis bu ñëpp ñëwee dugg boo duggee xool biis bi xam ne fii amul caaxaan boo ñëwee di nga toog calmement kenn du la déranger amul Versailles gis nga amul dara kenn du toog fii di déranger waaw takk seen ceinture ku nekk nekk si sa bopp waa bis bi moom d'abord PAI la nekk bu ñuy doog a tàmbale yàlla dimbali nañu benn lañ tàmbale waaye yàlla dimbali nañu ak liggéey bu ñuy liggéey comme comme ñu ne liggéey bi bu fekkee amul caaxaan rek di nga gis fay bi yàlla dimbali nañu ñu ngi nekk ak benn bis bi di liggéeyak moom ci dëkk bi yàlla dimbali nañu ba beneen ñëwaat la waaye bis bi PAI benn la woon waaye yàlla dogal na léegi ñaar la léegi benn bi kon Dakar la nek PA yi benn bi nek Touba keur seigne Abdou Karim mbake donc bi départ Dakar PA en face pharmacie PA bobu boobu mu ngi fay départ 6 h pile 6h du matin 6h du matin lay départ mom lay départ su départ 6h day jóge PA jaar ci connais moy li la wax rek ndimbal Serigne Touba parce que bisi bo xolé ñi ko fi yor ñep bis de luxe duñu def comme luñuy def duñu jaar ci banlieue bi di jëli nit ñi di wax Touba Touba lépp rek ci ndimbal bi ñun dañuy jaar ci banlieue bi xuus dugg jaar Kër masaar balaa ñuy jaar Kër Massar sax géejawaay la ñuy jóge bu ñu jógee géejawaay dinañ jaar dinañ jaar fi nga xamante ne moom mooy euh, stade Amadou bari ci Brioche doore bi jaaree noonu jël tali pikin bi dem pikin marché Zeng dem buntu Pikine dem Thiaroye jaar national daal jaar Mbaaw jaar foofu yëpp dañ fay jël ay clients yoo xamante ne dañuy ñëw Touba dañuy woote si numéro bi réservé du ñu xaar donc dañ leen di jaar jël leen su ñëwee ba Rifsac Zac Mbao bi ñu jël ko daal di dem jël sédiment à péage bi ñëw dañuy jox ñëpp respect ku nekk bu toogee fi muy toog problème du am ñëpp dinañ voyage si jàmm te duñu am benn problème fi mi ngi fi comme ni nga ko waxee fi mi ngi fi dangay ngay connecté ba dakaar wala ba Touba télévision mi ngi fi parce que bis bi képp ku fi dugg booy dem di nga yóbbaale sa reçu muy aller muy retour donc nit suñ la joxé reçu da ngay xamné numéro bank ñun dañ la koy léral parce que du ñëpp a jàng des fois bo ñëw di nga ñëw si mam, waaw numéro bank ni so bëggé woté ni ni wala alma sa téléphone ma enregistré la numéro bis bank ni benen beneen yoon dem woñu bu ko défé client yi légui dem nañ ba xamné bu ñu waré dem dañuy wo avant numéro téléphone bi 76 la 646 02 02 numéro Tigo bi tamit 76 la 365 04 04 am nañ benn numéro orange boo xamante ne nii moom moo gérer whatsapp yi ku ci bëgg woote tamit mun nga ci woote 77 028 99 10 boo ci wootee tamit dinañ la jox ay conseil nga xam fi ngay fekk bis bi wala fi nga war a taxaw ak yooyu yëpp bu fekkee tamit am na ku am yóbbante mun nga woote si numéro yi ñu wax la nu muy demee nga fekk ñu paya yi suñu heure nga joxe ko ñu enregistré fii lépp a wóor lépp a nekk ci sécurité. wàllum réservation tamit ñu ngi koy commencé jël parce que liggéey bi moo egg foofu. tey boo xoolee waa jannatu boo leen ñëwee ñëw leen ba ndindi wala jumaa ji dafay xaw a sore mun nañ sax ah jarutu ko nañ xaar biis rek moo dañu leen di jël réservation ñuy fay eh, dañuy fay ay orange mu ne ay wéef ñu teel leen seen place te bu ñu leen teel seen place dañu jël seen tur seen numéro téléphone seen numéro place yi bu ñu départ jumaa dañu lay nemmeeku di la nemmeeku ba egg jël la mais ñun tamit dañuy fexe di naxante clients yi parce que ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi kon ñu mer bu ñu meree ñom ñu mer bis bi dootul daw motax lool dafa dafa am solo transport dañ ko wara yobbu fenen heure bi tamit ñun dañ ko dañ ko respecté buñ la né 14 h taxawal fi 14 h 3 bo fi fekkul yow ya ñuy oo parce que il faut bu ñu toppee nit ñi parce que jikko sénégalais la ñuy wax léegi lepp lu ngi dégg ah buñ la waxé 15 h 16 h la ñuy ñëw léegi ñun ñoko bëgg dindi ci xel nit ñi xamné né tamit parce que da ngay dégg tubaab yi rek ñu respecté heure tubaab yi gënuñu ñu ay doomu aadama ay doomu aadama ñun war nañ ko mun a teg 14 heures 14 heures la bu weesee 14 heures 3 boo ñu ooyee waxoon nañ la 14 heures de fekk ñu jumaa ji dem nañ ba miin loolu ne ah ñii de amuñu caaxaan bu ñu waxee heure boo ñëw lu ñu fa fekk. beneen bi car dafa am heure boo xam ne ne dafa war a départ mais da ngay gis client ne ku yàkkamte rek mooy sëñ Abdou Karim li mu doon wax rek nit ku yàkkamte day dugg léegi waaye nañ dem nañ dem mais bu ñu la expliqué saa waay ñun bis bi dafa am heure. heure bii bu jotee dañuy dem fees nañu feesuñu mais du question dañuy ñëw rek nañ dem rek da ngay xam ne ñi ñu ngi commencé comprendre car bi dafa am ay heure yoo xam ne ne fii war na fi taxaw fii waru fi taxaw day dem waaw loolu tamit xam nga si si yokk liggéey bi la bokk. jërë ngeen jëf euh, mbokk yi xam ngeen ni niñ ko defee si fajar ak léegi ànd ak yéen si liggéeyu Cheikh Abdoul ba Mbacké borom makaarimal axlaaq bi ca Ndakaaru ca Touba PA yi ci garage ba ba nu ñàkk see si dëkk bu sell bi di gis ngeen yoon yëpp sëñ Mamour Ndaw Baye Fall taxaway bu am solo bi nga xamante am nak kaag mbokk yi an ñewon di duggoon si euh, transport bobu si bus bi ak si ni kon ci pencum euh, jëm ju tedd joju Cheikh abdul Karim mbacke borom al Akhlaq liggey bu reey bi nga xamante euh, kenn si njabotam gi ñu ko xoy taxawul Serigne alsan gey di ko ziar bu baax a baax taxaw ak serigne fallu jatara manam sëñ Mamour fas yéene dikk mom nak ci si makarim al Akhlaq bi nga xamante mu ngi yaatu si bepp bor rawatina na fi mu ne di ya-, yaatu ba ci euh, transport bi nga xamanteni xey mom te moy mooy fu ne rek manam ci biir rew mi euh, ba ci sous région bi manam bus di fa bawo di ñew fi ci dekk bu sel bi di Touba di fi fekk jëm ji muy fat seen aajo loolu yalla na yag euh, bus bi nga xamne mom bus seigne Fallou la bus Cheikh Abdou Karim bakke la tay itam mouride yi ndeysaan da nga kaddu yu am solo yim fi sédé wax na jëm mi seigne Abdou Karim mo nañ ci tabal moo tax ñu ci tabbi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu yagal fi Cheikh Abdou Karim bakke ñaan suñu borom Euh, lépp lu mu yéene liggéeyal xama Mouhamadul faadal yàlla na fi toog ba yeggale liggéey bi ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall dund lu yàgg lool te dund nga xam ne kër gi yëpp boo duggee ci kër gi Alioune Badara li gën a boo duggee rek dajeeg Baye Fall sa xol day sedd euh, ndax euh, li mu wax li mu ñu waxoon rek nee nañu képp ku la ne Mouride la boo ko lambee da nga daj ci moom maam Cheikh Ibrahima Fall te looloo feeñ ci jëmmam ju looloo feeñ ci jëmm yu tedd yi tey ku dugg ci kër gi da ngay xam ne jëmm ji ci Cheikh Abdou Karim Mbacké dëgg dëgg ma màkkaarima axlaax lay dund ndax euh, ku ko xam-xam ko ci loolu gisa saa su nekk rek mi ngi dalal doomu aadama yi di leen yiir di leen yërëm waaye di leen dimbali itam saa su ne day lor bopp ngir bëgg a jëriñ doomu aadama yi loolu saa su nekk danga koy gis fii ci kër gi amul guddi amul bëccëg amul suba ak ngoon mbooloo mu luñ bari bari bari boo ñëwee mu dalal leen kenn ku nekk lay sa aajo mu faj ko te leeral gis na seede yëpp ñëpp dañ koy seede ba bitim réew damay wax si Alioune Badara na ko ñu gën réew mi xam nañ Cheikh Abdou Karim Ba boo demee ay côté Belgique Suisse ku ne danaan la waxuma la mës naa ko gis mais gént rek laa ko def mu faj sama aajo barke borom Tuubaa kii seede na loola di ñaanal borom ëtt bi Cheikh Abdou Karim Mbacké mu Serigne fal mu yàgg fi loolu te gën a wér waaw Serigne Mamoun noonu yi ngeen jógee Ndakaaru dugg ci bis boobu di bisu sëriñ Alassane Guèye te bis bi mu def ko jagale ko ëttub sëriñ Abdou Karim bi ndax ñiy jógee Ndakaaru di fi ñëw dañoo xaw a takku mu wutal leen transport boo xam ne dana yombal seenab ñëw fii ci kësëñ bi dana yombal seenab dellu mu mel ni moom mën na cee jaare yaatal ci makaarimul axlaax li yàlla dogal mu wara a yaatoo jaare ci jëmmam ma ngay aju ca maslaa ba ak doxinu sëfoor ya ak doxinam moom ci boppam moo mel ni képp koo xam ne yàlla dogal na nga am yar boo xam ne yaa ngi ko yaroo ci keppaaru Sëriñ Abdou Karim Mbàkke mu Sëriñ Fàllu dalay tërbiya waaye yar bi day nekk day nekkaali ci biir li mu woote muy makaarimul axlaax makaarimul axlaax nag daayees na ko gis ci téere yi ñu di ko jàng sëriñ Tuubaa it ñaan na ko waa ab la naa makaarimal axlaax yi maa tahaabu bi bilaa siqaax sëriñ bi àgg na ci bane ci makaarimul axlaax lañ ma bind sëriñ Abdul Karim sëriñ Fàllu Mbàkke di waajuram bi mu doonee waajuram ba noppi mu xam ko noosoo ko waaye dafa jël loola jaay ko jënde ko ak taalibe ni waajuram defoon sëriñ Tuubaa moom la def ci sëñ Fàllu yàlla daal ne carax ci moom makaarim axlaax loolu mooy cër la boo xam ne sëñ Fàlloo ko moom ndax sëñ Fallou ku ne xam na ni nim mu doon dundee ca xol bu yaatu ba melokaan wa wu tedd wa du mer du jànne du bodde loolu makaarim axlaax ju wér la sëriñ Abdul Karim Mbàkke mu sëriñ Fallou donn ko ci loolu woote makaarim aklaax nag ci ba muy jafe lool bi ko àdduna soxlaa lool ndaw yi soxla ko lool mu dem fekki leen bam leen fekkee dund ñoom li mu dund ñoom ba indi leen ci yoon wi dugal leen ci lewatal seeni mbir bañ mën a ànd ak waa yoon wi mu woote makaarim bam sartaak ci àdduna ba daj ci àdduna fu fépp ba ñëpp xam ko ba àgg nañ ci buñ ne boroom makaarimul axlaax xel yëpp ci sëñ Abdul Karim Mbàkke mu sëriñ lay dem ndax moo ko woote nag ba ko woote jafe wax naa leen ko njëlbeen waxtaan bi ba ko woote jafe te sallallahu alayhi wa sallam dane man biñ may yebal dara taxut ñu di ma yebal lu dul makaarim axlaaq Sëriñ Tuubaa ñëw ñaan ko bëgg mu ne ci biir këram waaye bi ko yàlla jagleel nag sëriñ Abdul Karim Mbàkke mu sëriñ fal yàlla jagleel li ñu wooyee makaarim axlaaq mu doxal ko ba àdduna bépp di ko noosoo ba kenn ku ne bëgg a bokk ci daayira bobu ñuy woy makarim akhlaq ba ko aju ci mom bo ñëwé ben daayira la ma parce gis ñu wacc ci kër gi ci lima ma ne ko ñun day dañu bëgg wutal ñuy tur ndax ñoy soppé señ Fallu mu ne soppé señ Fallu mom duma ko soppi waye ku ma ku ma sa woot ñëw fi ne ko daayira la bëgg wutal ma tur dalay wax ni dalay wax ni man sama daayira yi aju ci man yëpp makarim akhlaq la tuddu mu liggéey ci liggéey bu rëy rëy sëñ bi kuréel yi nga xam ne liggéey na ci ñoom dañuy xeeti kuréel yu bari li ñuy wooyee ay noceurs lañu nit ñoo xam dañuy sol lu rafet di di dund ci lix waaye seen bakkan màcc na foo xam ne bu fa jëmee bu fa àggee dara du ko jar sëñ bi naab leen ba génn ci ñoom loole àdduna sàppi leen bo len gisee nak nañ melone lañu mel waye feug na ko ci seni xol ndax serigne touba mi mama moo ne aqiqatu suhdi bi qawli man naqat tarku ko xasdaha bi qalbin li samat nee deug deug deug moy nga nocc sa xol ci aduna nit man la gis nga war auto bi gëna rafet fekk da nga xamne jumtu kay bu yalla jox nit ñi la nga diko sante rek waye nekku ci sa xol kep ko xamne ya nga sol ay sagar nak ne da nga dudd aduna yow aduna la dudd nit day am li am lepp te xolam mu fukk ci àdduna nit ñu mel noonu nag la préparé am ci ñoo xam ne àdduna fëkkoon na leen ba dugal leen ci lu ñu war a dugg ñu ne ci mu fekki leen di naanandoo ak ñoom warga di waxtaanandoo ak ñoom di leen miinal boppam te taxul mu wax leen man maay kan ñu dem ba mu yàgg ñu ne waaw waaw bàyyi bii da war na ñoo xam ban bàyyi la comme gaa yi seen seen xeeti làngaay waaye bàyyi bii di toog ak ñun ban bàyyi la waaye ñu jékki-jékki am ku ne leen yéen ndax xam mooy Sëriñ Abdou rës jooju rës jooju maanaam rës seen kaw da leen di defar rës ji rek da leen defar rës ji ndax ndax loo loo foogul bu tàbbee sa kaw te di mbirum yàlla faw mu defar la su ko defee nag tomb defaru defaru tàmbalee tàbbi ci ñoom ñu tàmbali naan ah kon sëñ bi nañ nañ soppi nu ñu waxee moom bu ñëwee tàmbalee banque seen i tànk soppi langage yi xeeti yañ daan jëf muy ay tere ñu mënuñ mënuñ ko bàyyi cent pour cent waaye dañ koy nëbb la ci ëpp dem ba mu yàgg ñu bàyyi ko dem ba mu yàgg ñooñee ñoo ñi fekkoon mosuñoo jaar ci loola ñoo ñuy mujj di leen liste ndax ku defaru tàbbi ci yow mën ngaa fekk ku yàgg ci yoonu lool nga doon giddam ndax defaru du ay caaxaan nga xam ne bi mu ñëwee da leen a may sens sens bi mooy da leen di wax na leen yéen day yàquwu leen bonu leen ay taq-taq moo ne ci yéen rek buñ ko dindee mu dañ loolu dañuy am yaakaar dañ koy sopp te koo sopp lu mu la wax da ko def te sëriñ Abdoulaye Mbacke mii waajuram mas naa wax ni kuy sopp na nga fexe ba li ngay sopp nga xam ko daal ne ak fas sax boo ko soppi mu bëgg laa moom kon mu mel ni mën nañoo tënk ni kàddu yi foofu ba mu del siwaat li ñu fi dégg sëñ euh, Fallou Diatara mu baax mi ni ko waxee rek moom lii duñu bett si moom ndax nag euh, defarug sëriñ Saliou mbake nii rek lay mel si kàddu yu rëy yi nga xamante ni yëkkati na ko ci makaarimal axlaaq ak xaas gi nga xamante ni moom la si sëñ bi am transport bi ni ñu ko waxee ak euh, jëwriñ sëriñ Alsaan Gueye di ko jaajëfal bu baax a baax wax dëgg yàlla sëñ Mamour xanaa ñu euh, tëj kàddu yi rek lii lañ jëlale woon mbokk yi Euh, ba fii euh, Ndakaaru ba fii si dëkk bu sell bi Touba mën ko nag waajale bisub Kazu Rajab bi nga xamante ni incha allah ëllëg ak jàmm la ñaan sëriñ bi nangul ñu ci barkeb euh, pakk bu barkel bi dëkk bu màgg bi ñu nekk ndindi ci biir dëkk bu sell bi di Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Karim yal nañu ko yàlla fayal ndax dama ko doon wax toujours ne jaboot jàmmay mbokkam waaye mu fekk fi génération boo xam ne ñun it dañoo jaboot waaye ñëpp la wëlbati. kenn ku ne mu tette la ci lu baax nga di ko jëfe alsanit yàlla dimbali ko muy dem France ko ñëw la mu ci jëkk a def moom dafa ubbi woon benn magasin boo xam ne yore ay sonorisation yi saa yu màggal jotee ndeysaan mu daal di yebal ay rakkam ne leen dem leen ca màggal ga ngeen yóbbu sonorisation pour jàppale sëñ Karim moom daawul dem da leen di yebal rek ne dem leen Euh, ba mu demet lepp lo xamne ne Karim dina ko jox ne ko ah yo de sa nangam bo demé joxal ma sa def ko ne ah man day Mbàkke duma laal nga ma jox duma ko laal xam nga luma bëgg ñaanal ma rek sama yaay mu guddu fan té dara ban ko jot lo rek la bëgg nga ñaanal ma sama yaay mu guddu fan Karim ne ko ah yo de li nga wax mom dafa yo dal lu la jox yo dal ñaan rek nga soxla sa bu ko dara jot na fan ah sëriñ Karim dal di koy japp ci lool ndax waju dafa for daal di koy téy ci loolu bi nga xam ne ñoo sëñ Karim soxla na mu ñëw après mu commencé nag di ñëw Touba ga màggal gu jot màggal gu jot dañuy dem man dañuy dem ca màggal ga tubaa moom Alsane Gueye ñu àndandoo mu dem yore sonorisation ba foofa yore organisation lépp mu yore ko yàlla def mu nekk France dox defal ko fa liggéey boo xam ne taxawal ko association tubaab yee ca France ba pare eh, fab tubaab yu bari tuuba leen defa association eh, bu sëñ Karim Mbacké bon xam nga loolu rëy la loolu man du sama fierté ah bu alsan defe loolu du sama fierté de te sëñ Karim mu gënal ko lépp du ñëw fii mukk te jàddul ko sëñ mu soog ñëw fii bu ma ñëwee nañ dem ñu daal di ànd dem ci sëñ Karim Mbacké su demee sëñ Karim bu ma dee teral sax dindi dara ne ma am jox ko sa yaay bu ko dee jox ko mu ne ah sëñ Karim man ndax mom ja téye kat bo xamne ne lu ne ni sax bu ne sëñkat kat ne ko am joxal sa mu ne ah sëñ bi man dal nangam mujj bi après day nangu ndax sëñ bi ne ko am joxal ma sa mu dal di jël dal di koy tek sama lox bu jëkk bi mo jëkk defe ne du laal ñu and ak baara rakam joju léegi mu ne man dal wax deug yalla Karim di jox xaliss man lima fay def yeb di dañ ngir sakku ci mom ñaan bu bu ko bu ko day jox xaliss day melni ni da ko koy delo pour mom bugul laal dara babaar ne ko ah bu dee loolu yoo xam naa la indi bon man ma jox sama yaay léegi nag sëñ Karim insisté loolu ba léegi bu ñu demee saa yu ñu demee Touba bu ko sëñ Karim joxe rek daf ko naan am joxal sa yaay mu dal di jël ne ma yaay am loolu rëy la ci man a ah, bon boog man mënuma lu dul gërëm euh, gërëm ko moom alsaan di ko ñaanal te yàlla aussi la fal ko cat jubale ko ñëpp jubale ko mbokkam ay rakam yi ka mbokkam yi ki dëkkandoom jubale ko ñëpp ci kàttu ne yàlla te loolu lay def te loolu la ko sëñ Karim ndax sëñ Karim jox na ma cër boo xam ne cër bu rëy bu tabaski jotee moom da daan jënd xar dem ñoom daf may jëndale xar mais tabaski bu jotee sëñ Karim ci boppam moom lay yónni yebal ko indil ma xarum ñu indil ma xarum tabaski fii man kenn jëndalatu ma tabaski bon donc man sëñ Karim daf ma jox cër bu rëy sëñ Karim ñaan rek la am ci moom. yàlla na ñu ko yàlla fayal ñu am yaakaar ji moom yaakaar ji am ci moom yàlla bu ko yàlla tas. ndax sama digënté ñoon du mom mom sëñ Karim ñëpp la japp amul tidiane mourid xarit amul kenn saa daan def euh, conférence fi mom ci bopam de yone délégation ak enveloppe bu bari jox ma ma joxé ko bon sëñ Karim daf ma jox ciir bo xamné man vraiment euh, li mu def ci man dafa dafa reuy sëñ Karim yal na ma ko sa fayal saa yu ma démé lool la ko wax yal na ma ko li def sama njabot yal na ko yàlla itam euh, yek lool li Alsaan Gueye wax ne sëñ bi dafa ma fonk wax na dëgg cër bu rëy la ma jox tey dafa xam maay kan sëñ Karim bon lan lan laay waxati man lu dul ñaanal ko bon boog euh, loolu daal la amoon li ma ci wax ci témoignage ci li tax ma booleeg moom ba sama waa kër yi nekk ci may liggéey dafa yàgg mag sëñ Fallou sëñ Abdoulaat Alsaan Alsaan lépp loo xam ne def na ko cër la boo xam ne yàlla jaarale na ko ci moom bon loolu dafa am solo ah man nag dama koy ñaanal rek moom Alsaan dama koy ñaanal ndax ah, mu yóbbu na ma màkka bett ma bon boog man damay sant yàlla rek yàlla na ko yàlla la fak yan moom itam jubale ko ki rakkam jubale ko mbokkam jubale ñëpp ndax lu baax bu la ko yàlla mayee mission la daf la ci dugal pour nga jàppale ñëpp te bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn moom ñëpp lay defal lu baax bàyyiwul kenn yàlla na ko yàlla la fak yan te jàppale ko jubale ko ñep jubale ko mbokk yek eh, ay ay ay rakamak, ak ay magam ak ko ndu yak ñep yalla ko yalla jubale ñep ci katunu yalla waaw te ñoo ñëpp la lañu yaakar ci mom yalla bu ko yalla tas ma delu wax fi ci melom ngir way ku yàlla baaxal war na waaju am xel ki may bëgg a way sang la du moroom Cheikh Abdul Karim Mbàkke moroomante woo da ngaa moom ngir cër bi góor yàlla dul xamte woo am yaa ko fab tey ji raw gaaño woon lislaam ay ay loola woon ñi ay woon ñëpp fegal nañ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 te fu mu ñàkk fu ne du sofe fa yàllaahu kon cant ñeel na la yow mii ñu melal nii ñu mel te mosoo taayee ko noppi ci ñu digal lu baax ak tere safaan borom makaarimul axlaaq Cheikh Abdoulahi al Karim doon nga bu wér ci xarnu bi ñu ne te yaay kii ramu xarnu bi ana niiraani yàllaa la tànn yeneen bi siñu Seex Bamba xëy la jiital nga raw sang ak sëriñu jamono góor góor ñi àll tax mukk nga jëng mbaa di wax waxi neel ak noobu daal yaa ñu koy jàngal Cheikh ko fee jëfi te du am ñun fu ñuy doxee dañuy siggee ko sant sëriñ Fallu te doomi Serigne Fallou lii doy a ndam sa tànk ci kaw farata ak dundal su national lii képp la ñor bu la neexee di bàkku ndeyam nga ndam jarul di làqu xajatoo fenn jantug njolloor nga guni dàng kenn de sa morom may mama xool soxna jaara bu sa maam Mariama ñu may Ahmadul Khadim moom la ñu duppee soxna awa bu sa mi ñu may Cheikh Mouhamadul Fadilu mu dellu ko duppee soxna awa fay mi ñu may Cheikh Abdoul Karim yow njëkkantewoo mbaax dangaa la diine ca mu doon la gën a ñu la tànnee nga raw amul ku ñuul wala ku weex bëgg lu baax ku ne ngay kilifaam waa ji gam-gam la ak woyofal sa mbir dalaa xamul nekkoon mu fox nit sahaabi yu ne yaa fii danay yonen xëlu leen tëddaw wut si gaaw liy jëriña caamut lor mooy borom jikko yu rafet yi doktooru xol yi faral suñuy ràjji xol mbàkke te defar ñun suñuy jikko yow kuy déglu say ndigal sax ci te bali ngay tere bu yàkkamtiwul kenn du ko tee am lu baax xam-xam lu bañ a xajalikoo keroog lislaam bi yaay mottali nde yaa matal yoonu lislaam bi yow rek a dajal tafsiral nga nu quraanul karim ci ay meloo ki jikko ba ñu dooni fóorite mësuñoo dal baa yaa gënal yàlla fi jàmm ñi nga say waxtu mëstaneel ci dul ngërëm doo xàjjalee ko parparloo mbaa jénga ko wut farandoo ñëpp nga boole yemale ku nekk jox ko mbàkke li mu moom doo jàpp nit ngir xeet xàmmewoo pël géer jikko yeneen nga làmboo nit ñaa ngi safoo sëriñ leen bàyyi te ku ci dib sët ku ne boo sañoon sëriñ Fallu doon sa maam suñuy xalaata yam ci géej mbàkke moo waral ñu di la ko meloon waaye ku dul ki la bind mënta xam sa daya yow sëriñ Fallilu doon lu nga yeneen ba te yaa fi doonoon Cheikh Bamba faale nga làmp faal mi leeral tey ji yoonu Bamba xamam nga yàlla waral sëriñ Fallu mëstoon a xàmmee Tijaan xaadir laayeen bab chrétien ku ñëw mu teral foofu dem ñu di ko safoo ko bëgge ñii di ko duppee waaye qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ba yaay boroom ña xelu ñoom xelu nañ ngir la ñu daa dégg ko wax ci Serigne Fallou lépp a ngi fi yow yaay Serigne Fallilou borom bi ndéeg saam aliya xeer ak bogo Cheikh Karim Mbacké yaay Serigne Fallilou toj nga aliya Serigne Baara ñibbi àjjana teew laa doon borom ndindi Touba bogo a ci di lu Mbacké mosoo beeki paaleen sagal nga maam Cheikh Ibrahima Fall yeesaan nga Mbacké yoonu Baye Fall defar nga ay kàngamu ki fóore yu ne nugum ngir war maa ki teggin ngay jàngale ñoo ngi ne nugum jàngalewaat nga ak tarbiya ci yoonu murit xamaat nañu ana naka la jàng toppab sa ngam yow mosuloo woyofal génn ndigal amoo xaaj ak seen ci génn kër foofu dem sàkku nga fa ngërëmal yàlla ba far féete kaw yaa di toppandoo ngir say melo mbàkke amoo ci ndend mu su laa jëm mukk yaa di tiitaroo am kilifa yaa ñu ko jàngal fonk ko it amoo ci maas tarbiyu nga Mbàkke ba am ngërëmal mboolem gaañe woon am nga ngërëmal Cheikh Modou Moustapha am nga ngërëmal Cheikh Mouhamadul Fadilou Cheikh Abdoulaye Mbàkke gërëm na la Cheikh Abdoul gërëm na la Serigne Saliou gërëm na la ak Cheikh Mouhamadul Mourtada ma dellu joyal sama xalima jëm si fi yow ngir dabuwaat mboolem jikko ye ci Serigne Moustapha Fallilou gaañe mel ni Serigne Modou bu sa jëng baatin la boole woon ak silvis sa mës ta rakk yi jooy dug nettali damaa fekkee keroog ci aaliya ba sëriñ baaray ñëw digg naaj wu tàng nga defi tànku neen boole ceeg daw ngir tepp su sëriñ ba yaa doy waar rëppeelu ci kanamu sëriñ baara di safug na nga laxasaay bu xew bu gis boromam mam baara keroog ku fa teewoon ku ne yéemu nga ëttu mbàkke mosoo bekki paaren sa jëf jaafay riir cheikh aboo falilu gërëm na la ngir sa mbégteem gu réy ga fàddu na juróom-ñeenti fan ci chahabaan jural nañuy ngëneeli ba mu jébbal cheikh i fadilu cheikh karim mbàkke yow foo ma sa jaar yaa fa jëf lu jaajëf Touba Bogo Fata jëfal nga fa Cheikh Abdoul Fata lu waral ngërëm lay riir ba daj jabooti faddilu ku ñaan ñàkk boo jëndee am Cheikh Karim Mbàkke am nga ndam noppal nga say kilifa kenn déggu la te yaa yor li mat di wax déggeesu la jël nga sa lépp jébbal sëriñ aboo mi déglu Cheikh Sidi Muxtaar mbooleem ngërëmal sët yi dajees na fi yow ngir yaa wane am waaye di jariñoo bay faalu yoonu murit Cheikh Abdoul Karim Mbacke roy teef nga kër Cheikh Rafal nangu ndigal ak sell gaa jëf li waral ngay soppeb gaa yi Cheikh Rafal yeesaan nga taarixu yoon wi te yaa jàngalewaat ak taalube wallaahi jàng nga jagleel nga jagal yoonu Cheikh Rami taxaraw koo fi gis ma ngay bëngee ko xënte woo bégal sëriñam sët bi njëkk Touba njëkk a doon sëriñ Touba alaaji baara yaa ñu won ci moom ba ñu xam ne Ahmadou Bamba jógu fii